ne du ko wax day def lu baax du ko wax day jëf lu baax te du ko wax euh, moo woy euh, li nga xamante ni ku mën na def euh, balaa boobu rek ñu nuyu la bàyyi la nga nuyu ak téléspectateurs yi. maa ngi leen di nuyu Aba sama grand di leen màggal yéen ñëpp. jaajëf Adja di ziar waa àdduna yëpp di ziar waa Yoff bi ma bàyyeekoo di ziar sama fans yëpp. Mhm. ñu am nag. kilifa bu ñëw ci ah, plateau bi euh, bu ma nee kilifa kilifa la ñun ci métier bi ñuy def mm-hmm. waaye suñu kilifa la suñu mag la suñu xarit la di ñu conseiller di ñu teg ci yoon bu ñu juumee bu ñu defee naka sudul noonu mu woo ñu indiwaat ñu defee leen ko nii doxal leen ko nii tey mu indi euh, benn festival bu mag boo xam ni dafa am place bu ngande ngande ci wàllu culture mm-hmm. surtout ci wàllu humour euh, keppaaru maam yaakaar naa ni euh, bëri na ñoo xam ne dañu koy waxtaanee bëri na ko xam mais mu yóbbu ko ci une ville boo xam ni dañ ko xam ci culture mais mu jëmmal ville bi nekk ambassadeur du ma ko laaj parce que dama ko bëgg trop pour laaj ko damay ni bàyyi yéen euh, grand baa ngi ni ngeen waxtaan ak moom déjà keppaaru maam bi dañ koy nuyu balaa euh, dara di xew ñu nuyu la rek bàyyi la ñu nuyu ak di fay di leen ziyaare di am mbégte trop nag franchement parce que chaque fois bu ñëwee fii rek c'est du bonheur di bu baax a baax a baax waaw macha allah Mado dafa yàgg li nga xamante ni mooy keppaaru maam man nag euh, mosuma am occasion dem fa chaque fois daf may invité rek soo leen mënee raconter un peu historique keppaaru xam nga keppaaru wax ni ñun les prophètes chez soi da ngay gis tëngeej ku nekk dafa may gis ne ma grand man Jojo laa bëgg ki ne man Sanex laa bëgg a gis ki ne man mère Dial et cetera donc comme aw ma xaalis ma leen may ma ne au moins am naa loo xamante ni mën na leen indil ñooñu ñu saafonte ak ñoom bu ñu ñëwee ñu def ay cadeaux pour xale yi football ak ñoom lakk jën ensemble tu vois waaw def ay affaire xale quoi communion entre jël tous les artistes mhm. yéegal leen ci ay voiture mhm. ñu traversé tout Rufisque bàyyi seen oto yi def vraiment caravane yu nice guddi bi ñu def ay veillées ci quartier yi mhm. donc pratiquement c'est ça donc loolu la commencé demee ci koñ bi ba mu mujj xajatul foofu donc ma yóbbu ko ci ville bi actuellement ça regroupe au moins de plus d'un millier de personnes ah. durant trois jours Euh, ñuy ñu ci ciy sargal Tëngéej parce que ñun kon foofu la ñu juddoo foofu la ñu màggee foofu la ñu jàngee aar donc dafay jaaru benn moment donné li ñu am mhm. ñu dem bokk ko ak ñoom. effectivement et c'est exactement ce qu'on a la septième édition donc toll ci septième édition mooy miin ngeen ko e je pense que waa Tëngéej wala ñum ci ñu munti doon ñi leen di suivre adopté nañ ko waaye loo gis day am innovation cette année quelle sera l'innovation waaw innovation bi nag ren dafa nekk de taille. Mhm. parce que yàlla dafa dogal aussi at mu nekk rek. booy màgg war ngay mën xalaat aussi ci màggaay bi. nga am loo ci loo ci loo ci yokk donc cette année ci. Mhm. innovation bu njëkk mooy dañuy def dîner de gala. Mhm. mosuñu ko def. waaw on faisait juste des spectacles. dëgg moo tax saa su nekk. artistes yi rek ñoom ñooy ñëw. Mhm. bon kilifay yi sañse. ñëw toog ak seen ay soxna di lekk artistes yi di leen jouer. donc ren ma ni artistes yi ñooy ñëw sañse. toog ànd ak seen njaboot. cravate mu rafet ñu jouer leen bégal leen. beneen innovation bi nag mooy sama rak suma xarit Abba mooy jour boobu invité d'honneur bi festival mooy invité d'honneur bi. waaw vraiment donc parce que moom tamit mhm. relation bu ñu am la. Mhm. mu nekk loo xamante ni euh, mhm. macha allah dara yàquwu si. ma doon nit kese nag moom mu bëggal ma boppam. man tamit mu bëgg man damay baale lépp sauf mbëggeel man ku ma bëgg ma fayu man da ngay wax may jëlale mais bëgg man damay fayu ma jël abaa nag mu nekk sama sama sama sama sama invité d'honneur moom ak Leyti Fall Leyti aussi nekk suma doomu ndey suma lépp donc maanaam daal mi ngi noonu loolu ci la bokk beneen bi mooy daan nañ dem ci prison bi leen jouer ren aussi day nekkaat beneen dimension foofu tu vois donc vraiment waaw mmh. uhhuh.

waaw mais xam nga xam nga des fois. bi tey doon laaj am solo. Euh, <laughs> ma ne comme euh, bu ñu waxee euh, Ibrahima Mbaye Sopé. Mm-hmm. ci originalité bi. Mm-hmm. ci nit ku ordinaire bi nga nekk. Mm-hmm. ak ci li nga xam ne moo di théâtre bi. ngay nga am initiative bu créer lii ba mu dem ba am ba ba nekk septième édition. lan moo la jox xel boobu noonu. bon xel bi mooy sama sama sama lieu d'abord de fréquentation. ak samay xarit. et am sponsor bu kenn amul. dëgg mooy artistes yi. Mhm. man les artistes ñooy sama premier sponsor. Euh, bi ma koy wax léegi da nga génnoon. yow yaay sama invité d'honneur. bu toog maa ngi seetaan lépp. nga nekk suma rakk. nekk suma xarit. ba pare moom sama soxna sopp ko. yàlla seede na ko. sopp na ku garaaw. Mhm, <laughs> dañuy nag maanaam. dëgg la ah, ah, kon ay Ousmane ak yooyu yëpp kon war naa mën a génn wala. festival bi naa ci euh, benn mooy que yaa ngi ciy rendre aussi hommage ak ay nit. waaw waaw xam nga nit booy ànd ak moom ba yàlla dogal mm-hmm. fekkewul mm-hmm. donc fu nga rendre ko hommage. te suñu papa Demba Fall. Mm-hmm. dafa bokkoon ñun de bizarrement man dama bokkoon ci ay soppeem moom. te man moom mooy sama sama sama soppe. moom dañ ko rendre hommage rendre hommage monsieur Faye ñaari monsieur Faye ci bokkoon ak soxna suñu naan Rama Diallo ñoo xamante ni dernière édition bi mm. ñoo ko defandoo ensemble oh, oh ren ñu fekkewuñu mm. donc c'est pour leur montrer que théâtre mm-hmm. dafa war a am tànk kanam te couleur aar bokk na ci li koy dundal en tout cas sa festival bi moom day dundal aar bu baax a baax mm-hmm. mais ah balaa ñu lay jox ngay tëj euh, dañuy waxtaan ak euh, ki nga xam ni moom mooy Bouba ñaa ci euh, projet yi ci euh, clip bi nga xam ni ku mën na def euh, moom bi mu ñu indil foog naa ni Bouba bi mooy clip bi njëkk. waaw bii mooy clip bi njëkk defoon naa benn single maay loo ko gars yi mu ngi disponible ci plateforme yëpp au niveau international ñu def production ku mën na def morceau boo xam ne dañ ci rendre hommage ñëpp ñoo xam ne soutien de famille lañ mhm. nekk ci famille di dimbali nga xam ne bu soxla amee dañ leen di xalaat urgentement ñooñu laa rendre hommage muy képp ku mën a doon ci métier boo mën a nekk nag ma ni day def lu baax du ko waax day jëf lu baax te du ko waax ku mel ni kii ku ko am looy doyee keneen ba di ko wuti xam naa ni waa ji ñu am cey ku ko am looy doyee keneen dimbale néew doole yi yaa ca man eh. te ku la man ci looloo la man dëgg dëgg doo seen moroom sama gaa ñi dal yaa leen man doora géy mi may bëgg way doomi réew mi la am na ndam yàlla na nga yegg fa nga jëm jubalal yow di nga dem. ay léegi wax ñu projet yi eh, lan la lan mooy waajal man damaa bëgg. waykat bu way yomb. waykat boo parce que loolu mën a koy def. mën waaw projet yi mooy euh, ñu ngi ñëw. ndax dañu wayoon benn morceau boo xam ne yoof lañ ci woy muy ndëpp ndey siin. moom nga ñuy waaw ah, yow ñoo bokk koñ de. Ah, waaw waxal waay yàlla dogal morceau bi nag àdduna yëpp bëgg ko. Mm-hmm. ndax dama si woy loo xam ne mooy culture waa Yoff mm-hmm. ma gis gars yi xam nga ñëpp di ko TikTok. ñu war a def production bi dinañ leen ko defal single bu bees tàq. defaraat leen ko clip bu bees tàq boo xam ni yoof lañ koy defee incha allah. Mhm. mënuma nag euh, def sama émission ba pare dama bëgg nga may ma ma remercier ñu ndaw ñoo xam ne dañ ma jàppale bi may ñëw. muy sama benn xarit boo xam ne sama benn xarit boo xamante ni si xam nga maam na boroom daaru dafa ma sal solal. fële ca Wakaam sax sa ah, doomu ndey waaw borom yëre yu baax yi gars yi xam nga mu mhm. sañsel ma lu nice ne ma mhm. demal ci émission bi. ak sama xarit Ndiasse Thiam borom Brescia borom Bergamo mi nga ne vingt cinq après Bercy dañuy dem foofu incha allah foofu ci Brescia mhm. may remercier sama xarit yëpp di gërëm tamit sama waa kër sama yaay sama papa ku lim juum mhm. di gërëm tamit sama fans yi nekk si àdduna bi yëpp moom tamit ah. mu wax euh, son mot de la fin euh, bu ko defee ñun ñëpp ku ci nekk wax li nga xam ni mooy euh, sa mot de la fin ñu daal di koy tëj rek ndax temps amul fi ah, balaa boobu damay woo acteur yëpp sama naataango acteur yëpp ñu ñëw ci festival bi nga xamante ne Ibrahima Mbaye Sopé koy def parce que c'est un grand mi ñuy jàppale mi ñuy éduquer loolu mënoo mënoo dem te doo ko mooy def festival ñi sénégalais yi mel ci Sopé nañ ko mm. bëggee fi ko teg acteur yi raw invité d'honneur ak parrain Aba No Stress ñi ko sénégalais bëggee fi ko teg loolu nga baax rek te bëgg woote waaye ñi ñu wuy si nañ ba xam nga dafa xam aar moo téye aar eh, ba pare kenn laaju la et cetera <laughs> mais mais di di bëggee ñëw Aba ah sama xol sedd na ba pare aussi grand bi Youssou chaque année moom mooy nekk parrain officiel bi chaque année ndeysaan mu am lu ma wax culture kay gisee waxtaan ci donc vraiment ñu ngi woo ñëpp le 24 25 et 26 à Rufisque dina fa am lépp pour tàggoo nag Aba ah nga may ma exceptionnellement dama ànd ak sama doom bu jigéen muy Koumba njaay muy fête anniversaire am tey mu ngi nee taxaw ma koy souhaité joyeux anniversaire. Mhm. mi ngi nii. boo ma ma ñëwal ku ma ñëwal. kaay kaay kaay ñëwal ñëwal rek gaawul ma tàggoo. joyeux anniversaire. kuy féete ñu di lay bégal. musique ba jolli dara ba bëri kado. waaw waaw nangul dogal bi. Eh. billaay nangul eh. dogal bi. Eh. waaye na dogal bi. yàlla mooy ki ko amee. sa yaay dalaa ñaanal. sa baay gën na la ko si xel teraanga xam na sa war yaay goree waaw. alaaji Ibrahima Mbaye soppil nañu. liggéeyal na Sénégal. liggéeyal na Afrique waaw waaw waaw alaaji Ibrahima Mbaye soppe sa baay doy na sa aba xoolal kii papaam ak yaayam mm-hmm. mu leen laaj ñu ne ko joxuñu la laajal sa papa day bàyyi ay jour ñëw toog sama kër di ma toggal lu ne la may defal man mbëggeel bu ma bëgg rek mën ma ko fay donc moo tax tey ma ne ko nañ jam rek da ngay toog na à mais xamoon naa dama koy dóor benn piège mais yàlla na yàlla fay eh, yàlla na yàlla fa yàlla na yàlla fay